parce que sama yaay bëgguma mu xam bëgguma mu xam lu ma nekk lu jaam moom damay toog sax di ma wax man su ma tëddee du ma nelaw. d' accord léegi yow ñaata jours nga def foofu noonu ci Dakar trois jours. trois jours laa ko def. trois jours yëpp guddi gu nekk mi ngi doon tëdd ak yow. deux jours yi la tëdd ak man beneen jour bi sama yaay ñëw si guddi gi bi ma xëyee laa ñibbisi waaye waxuma ko si dara. da nga xëy rek gàddu say bagages ñëw. sama yaay bi mu ñëwee après daanaka damay dem mun na ma toogal yenn daal mun na ko damay dem parce que damaa yor liggéey jàmm. après si laa ñëw continuer sama liggéey. d'accord sa papa tëdd na yow première fois nga xëy suba dem marché ñëw toggooñ. dama xëy suba dem ma que dugub bi yooyu yëpp mi xëy suba toog foofu ba benn heure ma doog a taal. loolu loolu moom moom wax ne ma pour xanaa dëgg dama wax sama naq bi bu ma togg mooy ko topp si man man ma yaay togg si saa jug nag doog a dem taal après. toog foofu ñu añ ñu añ bi teg ko foofu dem delluwaat si biir tudd. yow ñaata ak nga man 2003 la. 2003 nga jóg. Euh, xanaa sa papa bu mu lay bu mu bu lay violé boobu fekk na nekkoo jànq. boo fekk na ma nekk jànq parce que mosuma xaw ma benn góor mosuma si góor léegi sa papa bi mu tëddee ak yow ba pare bi nga xëyee dangaa dem defi say activité amul dara lu lay nax lu la metti. dama xëy sa parce que laa mën a def parce que dama nekk sama ay rakk. parce que nekk ay nit si koñ bi te kër googu tout le temps nit ñi dañ fay ñëw moo tax mënu ma def benn effort wala mënu def dara loo xam ne si li nga xam ne man mooy loolu am na damay métti wala lenn mais bi ma ñëwee dellu si sama liggéey kii la xamul ma dara parce que laaj nañu fan yooyu lan moo moo si yow moo leen dara dama xaw a feebar nii rek te ma ngay sooxaale di liggéey sama liggéey di liggéey sama liggéey noonu ndànk-ndànk affaire yi dama feebar muy liggéey sama liggéey bi tëdd ko cëpp d'accord léegi euh, ginnaaw bi loolu bi nga ñibbisee euh, ñaata fan nga defaat après nga dégg ne sa pap gaañu na. te ma ñëwee toog naa fi dix jours laa toog maa que nu muy déggante moom chaque ay deux jours ma woo parce que daal su ma xam du ma nekk si yaam après c'est à toog ba benn guddi ma tëdd ba ay une deux heures sama téléphone sonné ñu woo ma sama benn rakk yaay ma woo do moomu parce que papa dafa accident waaye waxuma dafa gaañ loolu rek ma wax après man ma ma dem dëkk ba parce que sama papa dafa accidenté donc après su ma ñëw ba si yoon bi ci la diggante sama yaay mu ne ma dafa gaañ après si laa continué dem bañ lëj am quatre jours trois jours yooyu parce que lëj bi yëpp la ma fa nekk man affaire dem ba yooyu yëpp gaañ bi lëj bi du ñu jooyee parce que li ma def ba pare moom gaañ man loolu laa ciy parce que maa yoo xalaat lu ne ma see dal parce que li ma si loo xalaat nag moo ma si dal muy ëmb bi. da ngaa waaw. instant bi bi ma ñëwee da continué waa sama liggéey si laa toog gis sama yaram boo xam ne man mooy loolu si laa dem pharmacie jënd benn test def ko affaire bi benn train bu rouge bi ci des def na benn train waaye train bi dafa fulu ak rouge bu baax a baax waaye def na train bu xaw rouge après si laa ko jël envoyé sama benn mag moom seen papa yi ñoo bokk yaay waaye moom bés na yàlla ma laaj ko ko mu ne lii de ëmb lay signifié waaye bu nekkee ëmb mu la nii lay def bu nekkee nag ëmb bi xaw dëgg tuuti day def ñaari traits yu mag loolu ma wax ma bàyyi noonu après ma demaat hôpital ma xool ñu ma da nga parce que affaire bi am na am na un mois boobaay léegi nag moom te am na un mois quinze jours yoo mu lay toll affaire bi amagul léegi yow sa mag boobu noonu médecin bi nga envoyé woon affaire bi moom waxaatoo ko dara. parce que bëgguma ko xam sax dama ne ko sama benn xarit la. moom dama ne ko benn xarit moom moom ma xool loolu yi pour ko ko ba affaire yi nan la demee moom bu ëmb léegi loo bëgg. loolu laa bëgg ku ma dimbale ma dindi ëmb bi parce que aw ma kenn ku ma jàppale aw ma mag aw ma dara. lan moo tax bëggoo garder ëmb bi lu tax nga bëgg ko dindi. parce que mënuma bokk ak sama benn doomu papa ma loolu imaginer loolu métti na si man trop mënuma ko sama papa di ma jur ma jëlee si ëmb garde doom bi pour doom ko seetaan te parce que sama yaay ku xam sama yaay xam man loolu imaginer métti na trop mënuma loolu. d'accord merci beaucoup. bëgg naa daal ku parce que aw ma waaye sax su si kenn sama yaay liggéey mu liggéey kër laay liggéey fii chaque weer cinquante mille lañ may fay fay sama jàngu raq parce que aw ma ko ma dimbali sama yaay aw ma ko dimbali man kese laa am si doom maay liggéey di ko jox chaque fin du message message boo xam ne nee na ma xale yére yu ñuy sol léegi doy na waar te góor ñi dañoo fee dañoo feebal boo solee luñ lay xemmee mi nag loolu dal yaa ko teg sa bopp yàlla na ko yàlla may xolu muñ metti na nag mais am na pare muñ rek moo fi sës te ngeen accompagner ko ba mu mucc si jàmm waaye léegi sol yére bu sexy dafa war a tax ñu violé la waaw non non man ci kii ba pare may ma rek ba pare ci parce que dafa ma message mu tàng sama xol waaw nañ nañ pare ci kii ma message ba pare. léegi nit bu solee yére bu si nit bu defee sax yaramu neen léegi yow da ko war a dab di ko di ko di ko sàkku. Ah. pexe da amul yëf mm-hmm. sol lu sexy baaxul dëgg la. sol lu bon baaxul dëgg la mais joxul du raison pour ngay attaquer kenn wala ngay violer kenn. xanaa kon sa buntu boîte ngay taxaw ku romb. xale bu jigéen bu sol dàllam sax ñëw ba sa biir néeg seet si la dafa nekk raison pour yow nga sàkk ko. du raison de. nit boo séq ak moom dafay fekk mu nekk ci consentement mu nangu su bañee ni la déedéet bu la waxee déedéet loo ca def viol la tudd. loolu moom c'est clair. loolu na naa ne loo ca def rek viol la tudd nit nag am na droit sol lu ko neex loolu yëfam la. loolu yëfam la bu baaxee yëfam la bu bonee yëfam la donte dañuy ñaax xale ñu sol lu baax waaye nag boo ko violé dootul yëfam moom sa yëf la yow. léegi nga ne. fan Debo. waxam yi gëmoo ko. foo ko teg ndax lan. Luusa nga ca de. Hmm. kii nañ ko surveiller comme avortement mënul nekk. dama ne la wax ji bàyyi ja faatu wax. Hmm. benn. Hmm. te benn lay pàq la. beneen bi moo di xale bu jigéen bu jógee dëkk. xaw ma mënti jóge. ñëw ne yaa ngi daan si doole ndakaaru ngaa jël jóob gii. Mm-hmm. ñu la fukki junni nañ lay fay. Mm-hmm. léegi moom nan lay dunde ak lan lay yónnee seen kër. léegi fii femme ñu fi fay plus de fukki junni. déet waxuma loolu de dama ne la moom lu mu wax dafa leer dane damaa jugee bàyyi sama papa ak sama yaay ñëw fii di fi daan sama doole mm-hmm. ndakaaru ngaa jël jóob. ñëw néegu quinze mille franc vingt mille franc xam nga ne amatul ndakaaru gii. waaw mais moom déggoo lim la dëkk. fan la dëkk moom nee na ba mu ñibbisee kër googu ça di dire que ne kër ga muy liggéey la dëkk. kër gu muy liggéey see la dëkk. ah loolu la wax kay. nee na man fa la dëkk li xale yu bëri léegi xale yu bari léegi dootuñu léegi liggéey fanaan la liggéey fanaan la ñuy def léegi liggéey fanaan la ñuy def waaw liggéey fanaan. fukki junni bu ma xam la nga génn foofu bul dugg foofu. lu tax moo dugg foofu xam la moo taxawal may ma rek ma ñëw damaa bañ nga lii parce fukki junni xale yi. du xale yi déedéet non xam naa fi mu jëm. xam naa fi mu jëm maanaam fukki junni lañ koy fay est-ce que soxlawul xale yu góor di ko may ak di ko lii dama ne la xale yu jógee dëkk ba li ci ëpp seen salaire fukki junni la. ci la ñuy liggéey. di ci yor seeni parents di leen ci dimbali di leen ci yónnee. parfois quarante mille lay doon parfois quarante cinq mille lay doon. te ci la ñuy dimbal seeni parents di yónnee dëkk ba te taxul ñu def dara lu bon. mais comme aussi. taxul ñu def dara lu bon non waxuma ne ñoom ñëpp loolu la def. non non dama ne la dama ne la taxul ñu def dara lu am na ñoo xam ne salaire boobu. te ñëw fii nii te loo xam ne lu lu nekk. waaw am na. mais cas bi cas bi. waaw léegi ñaari ko foofu de. Ah. foofu dëkkalewu ma ko foofu ah. de dama ne la. wax la def te benn lay pàkk la. mais foofu affaire bi daa jóge fii te nu mu ko nettalee daa yomb ay sumeekul sama papa ubbil bunt bi na ma summi man côté boobu mën naa cee côté ah. boobu mën naa cee dugg sama papa dugg ci biir néeg bi nee na ma xale yi nelaw nañ waaw euh, diw lam bi summeeku man côté boobu ah, peut-être côté boobu peut-être mën naa see douter parce que ah, euh, ku sa ku ñu war a na ku ñu nar a tëddee moom di nga yuuxu bu fekkee neexul bu dee sa papa sax boobu yi gën a garaaw di nga yuuxu mais cas bi du affaire de. dafa na yu yow Mame Mbaye yuuxu ci ban anam. yuuxu ci ban côté soo dëkkee say rakk te bañ ku la ki ba yaay yëg ko eh, madame Tall Ami Sakho maa ngi lay waa man may Ami Sakho moo ba pare waaw waaw maa ngi ñëw non non nan ñëw kii moom mënul leer parce que fekke woo fekke woo non non non déedéet nu muy leere ah, yow fekke woo fekke wu ma yow fekke woo fekke wu ma waaw mais déggoo lii mais lii moom ñun duñ ko leeral parce que duñ dem ca yaayam naan kon sa jëkkër que dafa violé sa sa eh, faata duñ ko def fii moom benn lay nga a eh, duñ ko wax non non léegi nan lañ koy leerale ñu eh, mais am lu mën a nekk Dakar lan a lan lañ war a def mais lu ñu war a def mooy lan après ban solution mais ban solution après ñu xam mais foofu nag mais foofu nag mën nañ def may ma rek may ma rek solution bi ma njëkk wax mooy solution bi ma njëkk wax mooy solution bi ma njëkk wax mooy solution bi ko fi andi mooy avortement mënuñu ko duñ ko def loolu ma moom su taxawaalu woon ca mbedd ba ba keneen ëmbal ko su ñëwee daal ne dama bëgg joxe doom bi ñëw ci tës bi dañ koy tegal tës bi daal di wax ku bëgg jël doom mu jël ñun moo nu gënal mu sànni ko. pourquoi muy tuubal papam sax. moo nu gënal sànni bi. c'est pas grave dama doon ca mbedd ba bu doon ca mbedd ba lañ ko ko def. tuubaal sa bàyyi loolu loolu dama ne. Mamadou Fofana tuubaalul bàyyam gratuitement de. tuubaalul bàyyam gratuitement de. bu fekkoon keneen ak kër sa mbedd ba boo gën a seen. dafa faatu. bu keneen ak bu fekkoon keneen. waaw léegi nag may leen madame may leen madame Tass tuuti mu wax. Ami Sakho benn question madame. waaw ça va waaw jàmm. ça va alhamdulilah. alhamdulilah. Mm-hmm. dañoo dañoo dañoo dañoo <laughs> maam Diarra sama yaay maam Diarra Fam nee ma mantu dalal eh. ma ma ma noonu noonu. xalaat la ñeneen ak ñeneen xalaat. Fofana Fofana Fofana mais pourquoi il faut nga taxaw il faut il faut nga taxaw fenn. non non il mu taxaw fenn Fofana man néew ma la man déjà néew ma la man dama borom man